chers internautes yu dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës ci ëtt yëglekaay yi ñu commencé koog la tribune yëglekaay bi del siwaat ci génn àdduna Papa Thione nga xamante ne nii ni déebu la mujjee ñàkk bakkanam wan ginnaaw Sénégal ay njabootam sëngéem Sénégal gi ñëpp di jooy ndax monument dëgg moo daan yëglekaay bi dañoo xamal ni ñàkk dëgg kay mooy Bougane Gueye Dany ak Wally Ballago Seck teewul sénégalais yëpp wane nañu fi Papa Thione woon seen xol témoignage ko bee ba ci Abdoulaye Diop mi xamle ci biir yéenekaay bi ne mémoire artiste bu toll ne bu Thione Seck du amati ci àdduna yéenekaay bi defal ko hommage bu yaatu bu toll ak juróom-ñetti page ci xamale waat sénégalais yi kan mooy Papa Thione Direct moom tam jagleel xëtam bu njëkk Papa Thione yéenekaay bi ne monument bu rëy de ci wàllu musique daanu na niki démb te dara yóbbu ko lu dul mbas mi di covid 19 bi ni ñu xamal ni Papa kay mbas mee ko foofu yóbbu xamante ne ni toppoon na ko fukki fan gannaaw bañ ko blanchiré la libération yéenekaay ni Papa Thione dem na Sénégal sëngéem artistes yi di jooy hommage yi foo ko natt rek weesu na ko maître Ousseynou Sey di avocat am dellusiwaat ci yéenekaay bi dee xam le ne ba Papa Thione génn àdduna gannaaw ba ñu ko seetalee wecce ci coow li nga xamante ne ni daroon na ko moom avocat bi di maître Ousseynou Sey di xam le depuis le 4 mars la ñu seetal Papa Thione ci coow li nga xamante ne ni moo nekkoon ci kawam l'observateur ubbi ci xët bu yaatu moom tam jagleel ko Papa Thione mi nga xamante ne ni Papa Thione kay dund na musique dundal musique lu tolloog ñeent fukki at ak ñeent jàngale tey orienté lii moo ko taxoon a jug ci musique émission bii matal na ko yéene bi ne lit vocal lu Ramdaan bi kay gàcce ngaalaama moom ndax musique am boo koy dégg rek jàng dong nga def yéene kaay bi dellusiwaat ci juróomi dat yoo xamante ne ni marqué na lool bàyyi Wally Balago Seck bii ci biir musique sénégalaise yéene kaay bi dellusiwaat ci kàddu Wally Balago Seck yi di xam ne ci bàyyam bii ne dem na waaye a taxaw ci ginnaawam rek dana ko def vox populi moom tam ubbi xët bu yaatu ci demuk Papa Thione bii tey xam ne boroom xel di xelli xelam di ko jagleel askan bi waaye tamit di orienté ka teg nit ñi ci dëgg Papa Thione fu mu mësaan na dem rek mbooloo mu takk moo koy dab moo taxi démb mbooloo mi ko yóbbul boroomam foo ko natt rek weesu na ko yéenekaay bi di ñoo xamal sax ni projet bii di CEDEAO Anchor mujjul mat waaye lam ci def artiste dana ko néew a def ndax projet bi réyoon na rëy goo xamante ne nii doo ko dégg ci benn artiste dans le monde Walf Quotidien moom tam ubbi xët bi yaatu di rendre hommage Papa Thione tey xamle ne démb de ay témoignages yu bari wàcc na ja biir kër Papa Thione xale yi di jooy mag ñi di jooy ndax Papa Thione mi nga xamante ne nii génn na àdduna gannaaw ba mu amee juróom-benn ne démb kay mooy dernier bi ñooy rendre hommage Papa mi nga xamante ne ni safoon na yi lool nekkoon missionnaire njiitu Ramadan bi bàyyi histoire bu rëy ci ginnaawam yéene bi defal ñu portrait Papa bi muy door ci musique ba ni mu tëddee àdduna ni jii Sud du moom tam ne du des ginnaaw ci rendre hommage bii ñuy rendre hommage Papa Thione dellusiwaat ci kàddug Baaba yi nga xamante ni seede na ne Papa nit présenté grand public bi ci Sorano DJ Awadi di grand rappeur di xam ne ci biir yéenekaay bi ne du Sénégal a ñàkk waaye Afrique ci boppam moo ñàkk bu ma neexee sax ma ni àdduna wërgël këpp ñoo ñàkk repéru musique boo xamante ni nii duñu ko gaaw a amaat tey suñu borom yenn yàlla yërëm la taxare la aljanna Papa Thione